mbokk ñu ngi leen di nuyu yeen ñepp ku ci ne ci turam ak santam ni ko yanxoo ba waxe rek tay dañ am ñaari dëj ci dëkk bi lool mo tardel euh, manifestation bi euh, chronogramme bi nak ni la tëddee biñu défé ñaan ba pare dinañ jox ki nga xamné moy fi moy wax ci turu comité de santé yi mom mu njëkk wax ñu teg ci ki nga xamné moy wax ci turu ICP yi ak médecin chef yi buñ ci paré teg ci ki nga xamne mo fi teewal bàjjenu gox yi buñ ci paree teg ci ki fi syndicat yi parce que am nañ syndicat yu bari yu fi ne mais kèn dina wax ci sen tour buñ ci paree teg ci ki nga xamne moy wax ci touru délégué de quartier yi buñ ci paree Fay, ci Jijak di président commission sociale bu mairie di wax ci turu président commission santé bi nga xamne ne fi buñ ci nak euh comme médecin chef district nekku fi Euh, ñu jox maire mu tejj waye bala bobu dañu waron wax lan mo xew tay lan mo waral euh, jataay bi tay niko waral moy li ngeen di gis ak li ngeen gisul parce que amna garab yu fi ne yo xamne gisulen ko amna na ñetti million ci garab yo xamne dañ ko wara joxe tay dañ ko jënd pour joxo centre de santé de Hann Maristes sax dina fa taxaw touti parce que ñoom am déjà auto bu bees waaye nag bi ñuy marché bii fekk amuñu woon oto boobu ci diggante bi ministère de la santé di joxe oto ñu saisir ñu maire saisir Eva Coll moom mu boole ñu ci ñi ñu doon jox ambulance mais bi ñuy marché ambulance bi ci turu centre de santé Maris la woon moo tax tey ñoom lañ ko mën jox pour foofu aussi il faut ñu léral ko ba mu leer euh, benen bi moy li ngeen di gis ni benn bi Euh, appareil échographie la beneen bi chaise dentaire la yu dëppook jamono nag waaw yu dëppook jamono te ñoom ñaar ñëpp fii lañ jëm ci centre de santé bii bu Hann bu Hann sur Mer beneen bi dina rafet bu ñu amee jataay yu mel nii ñu am lu ñu leeral nit ñi ba mu leer nañ parce que nag ñun dañ daan toog suñu ruqu mairie bale rek

ci ci morgue ba bo démé ci mosquée yi loolu mo fa am split mo fa am da ngay jël sa néew def ko ci caisse gi def ci glace bayiko fa parce que centre de santé yi defuñu ko pour ben néew di fa ko ko bëgg da ngay dem ci hôpitaux yi ñu fofu néew mëna fa am wër sax te du yàqu loolu aussi dafa joon ñu ñu préciser ko benen bi moy médecin bi fi dëkk fi dañ ko défarat sage femme bi fi dëkk mu ngi ci chantier loolu aussi dafa jara a benen bi moy réseau électrique bi fi nek xam ngeen ni melone dañ ko défarat problème bi ñu am rek mooy fii dafa nekk fin de ligne fin de ligne nag mairie bi ak fii moo ci yem dañu am toujours ay problème donc loolu aussi war nañ ko wax beneen bi mooy facture ndox facture courant structure de santé yëpp nag laa wax muy poste de santé muy centre de santé mairie moo koy fay bu njëkk poste de santé yi ñoo doon fayal seen bopp ndox ak courant mairie jël na ko en charge depuis bientôt léegi mu bëgg a mot ak léegi mu bëgg a yàgg loolu c'est important ñu leeral dee ci personnel bi boo demee poste de santé bu Hann amul Ben ASC bu fa amati personnel bi yëpp maire bi jël na leen en charge moo leen di fay. soo demee poste de santé bu Anne sur Mer moom la wax montagne personnel bi yëpp sauf kenn maire bi jël na leen en charge moo leen di fay. soo ñëwee centre de santé Anne Maris ay chauffeur ay infirmier ay gardien ay caissier ay femme de charge yu bëri yu fa ne mairie jël na leen en charge soo ñëwee fii fii fii fii moom li fi jël mom ëpp na dayo wa parce que combat bi fi la fi fi wa fi mom lu bari lañ fi def moo tax ñu wara wax ci fi waaye wax leen ci fii mooy li ngay leeral fii fii personnel bu am solo bu nekkon fi comité de santé bi diko fay légui mairie mo koy fay pour woyefal tuuti nag comité de santé parce que seen moyen bari loolu lolu mu wesso a un médecin chef adjoint bu ñu recruter en 2017 muy un docteur Abdou Fattah Thiam mu ngi de santé de demee centre de santé Maris médecin chef adjoint le docteur Fatou Bintou Thiam mu ngi personnel bi la y concerné muy reclassement muy reconversion muy heure supplémentaire tout ñu personnel bi amul un agent commune de Anne muy santé muy fenen bu ngeen dégg muy yuuxu amul amul kenn ku ne weer dee na fayuñu amul donc yooyu aussi dañ ko war a leeral cotisation sociale yi muy IPRES muy caisse de sécurité sociale yi régulièrement payé loolu aussi dañ ko war a leeral ba mu leer chaque année tamit dinañ joxe juróom benn juróom-ñetti millions ci produit pharmaceutique 3 millions centre de santé bii 3 millions centre de santé bële ak 1 million centre de santé bu ne cérémonie bi ñuy def nii pour joxe médicament defoon nañ ko ay weer ci ginnaaw rek yàggul defaat nañ ko tey te balaa at mi di jeex dinañ joxé wat encore juroom ñetti millions bi weer wu ne am dotation carburant ci centre de santé bi ak centre de santé maris loolu aussi jar naa leeral gox yi nga xamné ñom ñoom mënul dem té andok ñom dañ leen di jox subvention 1 million def nañ ko ren daw def nañ ko dinañ ko def ren encore CMU lepp santé la enrôlé nañ 1000 personnes yépp mairie Hann Bel-Air fay

ñoo doon fayal seen bopp ndox ak courant mu doon charge bu rëy boo xamante ni man ak Max Diop defe naa lu nekk daj nañ ko pour mën a gérer loolu mais à travers le maire Babacar Mbengue depuis octobre euh, benn structure de santé fayatul ndox fayatul courant defe naa loolu lu am solo la lu ñuy wax ngeen xam ko xam vraiment loolu jàpp na ci beneen bi aussi mooy ci personnel euh, da ñëpp xam nañu structure de santé yi 500 wala 300 yi nit ñi di fayoo rek la ñuy am pour fonctionner euh, ci commune les 19 communes du département de Dakar li Hann bel apporté mutuelle de santé amul benn commune bu ko def ci mutuelle de santé yi loolu Bamar Gueye moo ko fa wax kon bu ma ñëwee population bu ñu taxawee dinaa wax aussi ne def na lii Bamar nee na luyal na ko siège mi ngi nii en face Bamar nee na jëlal na ko trois personnes di leen fay ñoo xamante ne dañuy liggéey si mutuel bi mu leen di fay nee na aussi euh, dina ko jox effigie aussi dina ko peintural euh, mutuel bi siège bi ba mu nekk lu fonctionnel monsieur le maire ñu lay remercier au nom de la population pour loolu. luñ ma sas nag diis na mooy wax si turu centre de santé poste de santé yi nekk si commune Hann bel je pense que yenn yi wax sax jaru ko il suffit nga xool xool centre yi am si district bi. xool yi am si yeneen côté yi pour xam ne lu am fii amul feneen donc loolu dama ko doon bëggoon ñu préciser que déjà SM wax naka léegi joxe woon nañu garab matul ñetti weer wala ñeenti weer joxe nañu bii dinañu joxewaat am na structure yu nekk dakaar depuis bu acte trois commencé ba léegi mësuñu jot garab te ñun au moins chaque année dinañ jot garab donc loolu il fallait qu'on le

ci commune bi yëpp di renforcer en matériel médical té lolu ñuy remercier non seulement le maire mais tout euh, naka lañ leen woyé sax l'équipe municipale ngeen baal ma. ngi nek nuyu ku nek ci turam ak santam di lu waxtaan bi torom nak di nuyu maire ak euh, toute son équipe euh, municipale di contane torom nak ndax defe naa ni ku yëngu ci euh, développement communautaire ku la jàppale rek nga bëgg te defe naa ku jàppale hôpitaux yi ak centre de santé yi ñun la ñun la jàppale daal ndax ñun euh, ku nekk xam na ni bàjjenu ko rôle am mooy prévention d'abord te prévention bi mooy dugg ci kër yi def porte à porte waxtaan ak euh, yaayu xale yi waxtaan ak borom kër yi defe naa ni loolu moom mooy suñu premier rôle kon suñu gisee maire defaat lii ñëw euh, subventionné centre de santé yi ndax centre sante yi bu doxee rek ñun suñu liggéey day gën a dox ndax ñun li ñu bëgg mooy centre de santé yi dox ku nekk fi nga jege ngay dem foofu di faju ndax euh, ku ne xam na ni euh, nit ñi dañuy comme li ñu wax sànq rek balaa ma koy fàtt dañuy bàyyi fi centre de santé bi dem parc wala ñu dem ba camp la moññee te xam nañ ni centre bi xeyna bu ñëk ba euh, ki ñu weesu nii xawoon na doy waa tuti dal mais ku xol centre bi ku fi ñëw li nga xam amna ay changement yu bari. kaddu yu gàtt la ñu wax syndicat yi nga xam ne ñoo nekk ci commune Hann Bel-Air la CNTS man maa ko représenté fii yaa FGTS Émilie te mu nek ci laboratoire moko ko représenté INSAS am na représentant wala li ngi noonu yaa Citra Call donc Mariko moo ko fi représenté ñun bi ñu jógee ville de Dakar ñu ñu indi ñu ci communes yi fii dañu am satisfaction total te syndicaliste xam ngeen ne lu jafe la syndicat revendication moo gën a bari ci mbiram ñun nag dañoo faaf sax amuñu lu ñu revendiquer ndax lépp loo xam ne liggéeykat amel euh, maire bi amel na la ko lépp defal nañu ko ba mu jeex kon nu le maire yow ak ñi nga àndal ak notable yi ñëpp kii nag dama koy beral loxo SM ku mun liggéeyam la te di ko def dama ne bu ñu jegee ci acte trois de la décentralisation am na ko wax ne les dix-neuf de la, de, de la ville de Dakar, de 19 communes de la région de Dakar. Mandemane, c'est la meilleure mairie du Sénégal. Manlolawa. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nous sommes di am contenté bu baax di jël cadeau ci jataay bi ah am na ku wax légui ci jataay bi ne amoon na ay jamono jànkonte woon nañu ak ay problème yaakaar naa amoon na ay jamono yoo xam ne yi lay dëgg-dëgg yi ñu daan dégg ci wàllu sant de santé bi neexul woon am mag mu wax ci waxtaan ak man maag moom ñu ànd damay tudd turam muy El Hadj Abdoulaye Fall parce que dafa am ñu fa demoon bi am lu ñu wax ci centre de santé bi maag moom ñu ànd ma woo Assane Thiandoum ñu ñëw keroog yaakaar naa SM mii moo ñu recevoir ba ñu waxtaaneek moom ba pare ñu jóge fa ñëw dugg fii ci centre bi fekk fi médecin chef bi ak major bi ñu visiteel ñuul mbooleem locaux yi nga xam ne moo fi nekk maire recevoir ñu te ku nekk xam na problème yi mu jànkoontool du ci pro du jufatu mairie bi parce que mairie bi avant acte trois maire yorewul woon hôpital bi kon bari na jànkoonte yu bari yoo xam ne lee jaar na fi mais du ci mom ñun nak yalla dogal na biñu ñëwé ci mom waxtaan ak mom lamu ñu xamalon mo doon fi ak juroom benn wër lepp lu leen nakar won dana leen neex yaakaar naa jataay bi tey seede na ko ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw jiital ci imaam yi ak déléguékat yi di leen jox seen ci waaye di ñaanal yàlla ñi nga xam ñoo fi jotee jóge muy alaaji Mor Ngom yàlla na ko leeram te jéegal ko yàlla ko booleek malaaka yéer ma ngi fii nag maa fi wutu tey Soda Ngom mi nga xam ne mooy président commission euh, santé et Soda dafa tukki et ma wutu ko fi en tant que président commission sociale na xam nga ne social ak santé ñom ñoo and lu mo tax mu wuti ko fi tay di nuyu ñep di sant ñep di nuyu babakar monsieur le maire di la gërëm di la sant di la ñaanal yalla yalla mi mëna jappalé yalla nay lay lay jappalé li nga xam ne mom ngay def ci biir commune an bel gi yalla nakoy la gis yalla nakoy la gis

centre de santé bi trois ans y a trois ans mu lépp wax nañ ko ci centre santé bi wax nañ sax ne centre de santé bi dafa war a tëj mais def naa tey ku ñëw ci centre santé bi nga xam ne changement am na fi loolu liggéeyu Babacar la bon nag nañ ko ci sant bu baax a baax a baax a baax lii nga xam ne moom la fi indi tey mu échographie ak chaise dentaire dafa nekk loo xam ne nécessité la pour population parce que xam ne léegi ñëpp dañu am problème de dentition ñëpp dañu am programme rajo ba nag su ko fi ndeetee day nekk loo xam ne ndimbal la ci population yaraax njëkk mbi ngi may ji mi ci siin du nu way du nu def leen waaye nit du riis juddu muy riis doon sa baay doon sa baay ku gën nga am jom bari ngor nangoo liggéey sànce yeew na 1981 ba léegi yaraax di wax ne dañuy lotisé ku fi ñëw première maire fi fekk cen bàyyi ci la ndax 96 la ñu def loolu dañu ko paas waaye bi nga ñëwee njëkk mi ngi may gi lotissement bi leer na bi nga ñëwee santé yaa ko fi indi bi nga ñëwee yaa yokk le maire Babacar Mbengue mooy loolu embauchement nga toogee ana ñu mooy loolu embauchement yi Babacar Mbengue yaay borom embauchement yi nee naa leen liggéey jëf jëfi Sëñ Bamba rek ngay jëf garbu ndumbeeg alasaar mama sili Njaay Nduy ak mama Sami Njaay Nduy ak mama Taari Njaay Nduy ñi nga dund si kulim bi ali sa baye ba tëngiñ njaga baye ba siin yaasin jubo yaay ndaa ndaat yaay ndaw nagu combaak yaay ndise waajaa bi ay ñi fi am si am lu nga xam ni boole woon dara wax dama ni seen ànd ak nii coow li yow waaye tubaarkàlla jërëjëf euh, mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku ne ci tuuram ak santam xam naa ne SM ba mu jëlee kàddu introduir rek mënoon nañ def remise symbolique ñaante dem waaye nag mun naa ne ñun ñëpp équipe lañ te képp ku fi jël kàddu rek dafa jaadu woon nga jël kàddu parce que mbir mi bu baaxee ci nga bokk damay faral di wax toujours ne li ngeen ma bëgg a teg dafa yomba torop bu baaxee yéen la bu bonee maire la léegi dafa am règle bu bees bu baaxee ñun la bu bonee ñun la en tout cas bëggoon naa balaa maa gën a sori ci kàddu yi nuyu kilifa yi fi teew tey Samba Gueye di kontaan trop ci sa teewaay dañ lay sant di la gërëm gis nañu yaraax rek moo la ñor lu ñu ne lu concerné commune bi nga teew leneen loo xamante ne dafa leerul sax doo ci teew oustaz Mor Thiam oustaz Mor Thiam ñu ngi lay gërëm yow ci sa taxawaay di gërëm bu baax a baax chef de village le wax si président de délégué de quartier yow mom fait lay spéciale gis nañu ni les quartiers de Anne. notables yi nga xamné ne nañ fi dam wélé yeen ñëpp dañ leen di sante di leen di nuyo ki nga xamné suñu yaay la wax développement yaraax rek intéressé muy

yifi nek nekk à lepp lo loo centre bi meun nako ñing koy def donc tay dam naan fierté la pour que tay ñu mën organiser cérémonie bu melni pour en tout cas meun leena duggal lo loo da fay renforcer seen capacité parce que renforcement de capacité meun na doon lo xamante peut-être ci njangalé la ci njang ci xam-xam mais renforcement de capacité meun na doon aussi ci way parce que tay bo xolé matériel yi ñu fi livré nga xol centre bi muy centre Anne sur Mer daf ko soxla parce que amuko lolu da fay renforcer le plateau lolu damay faral di wax population yi ne len bu len di comparer centre Yara ak centre Mariste ñaari centre la yu wuté daf ci am centre bo xamantane mi ngi fi au moins depuis 20 ans 84 déjà centre bu fait 20 ans rek plus lu tu ci biir pour que nit ñi parce que matériel ba fa da le renouvellement Auto, di la batterie garantie deux ans 2 ans bu il faut nga centre bi li nga xamné mom moñu fi centre bo centre de référence Domaine centre de référence la woon centre de référence la centre bi dafa dem a dem dem ba egg niveau bo xamantane ne mun presque boo leen hospitalisation amatu fi woon léegi ubbeeku na chaise dentaire problème la woon chaise dentaire ngi ni échographie problème la woon échographie ngi ni ci li nga xamné ne nañu prévoir ci ren mooy rajo ku xam rajo ci biiri centre importance bi mu am ci centre tey jël nañu disposition ci budget bii ñu voté conseil municipal y ma àndal les conseils municipaux voté ko muy ben appareil numérique de dernière génération à 70 millions inshallah. Nigi, ñi ngi ñi ngi ci procédure yo xamantene moy ñuy mëna permettre ni ñu défé cérémonie ñu défat cérémonie bu mel non ngeen mën gissal seen bopp xam nga loy wacc ak lo xamantene ñew ñëw na dafa wutee li dafa am fu mu jaar ba ñu matérialiser ko fa ñu jaaroon yoon boobu nañuy jaaraat pour li nga xamné moy appareil numérique boobu pour ñu indi ko dafa am benn détail bu ñuy faral di négliger mo am solo trop ci centre de santé moy tay di nga gis médecin bu toog di utiliser matériel bu courant coupé nu muy def muy groupe électrogène loolu aussi dafay loo xamante ne dafay loo xamante ne incha allah yooyu di ngeen gis ñu ñu ñu libre ko ci atum ren beneen bi bi ci jiitu boo ñëwee seeti médecin quel que soit médecin bu le consulter dafay ñëw ne la bindal la analyse damal nga def analyse yi muy matériel laboratoire inshallah jël nañ décision pour que mu am fi motax mané dafa baax que ñu def un certain nombre de précisions pour que nit ñi mëna comprendre né li ngeen gis ñu def ko fi dafa am mariste ba paré parce que Maris centre bu bees tàq docteur Diakhaté encore une fois vous avez en tout cas toute notre confiance yow ak équipe bi nga andal yépp docteur Tcham et tout le personnel li may mën a wax mooy yéen ngi def un travail remarquable centre bu la centre bu la centre de référence la moi je le dis avec fierté bokk na ci centre yi gën a rafet tey ci Sénégal waxuma Dakar waxuma Pikine mais Sénégal laa wax donc loolu dañ leen ciy félicité tey boo demee point E la fa nekk ci bàjjenu gox point E Hein? 15 la fi ci commune Hann bel 34 badjenu gox nga daal dem Mariste 22 badjenu gox 34 22 moy 56 badjenu gox 56 badjenu gox bo len jëlee nga bëgg len daggal salaire bu 50 000 nga len di jox at bu jot 30 millions la xam nga loolu dafay doon loo xamante ne bari.

waaw may la ñu rek ñu eggal yi léegi bëggoon encore une fois demander aux populations d'une manière générale à ce que ñu gën a nos structures de santé ce sont des structures de référence ce sont des structures yoo xamante ne médecins ya fa nekk wane nañu seeni ay compétences ailleurs ba looloo tax ñun ñu am chance am leen fii ci suñu biir nañ leen gunge bu ñu nee médecin nag adjoint comité de santé personnel mais en tout cas à ce que nous puissions revaloriser li nga xamné le travail social dans ce pays